Papa Absa Mbacké borom daaru jiraja hatutu yaxa bala Mbacké ngir mo da bala jiraja lam jar la Mbacké borom daaru jiraja di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér ak wér lépp di nuyu temps ngoone tuuti suñu yaay ju baax bi di ko ñaanal. man jar na borom daaru Cheikh Abdou Khoudoss Mbacké Jiraja. fi naan ba gaawaan Mbacké Jiraja. waaw waaw waaw waaw. ay Serigne Modou Mamoun Mbacké Jiraja. waaw waaw waaw. ci sa ginnaaw ay Mbàkke jublu la jublu la bu ñëpp ginnaaw foo mën a jëm yóbbu gaaw ala sa barke moo la gën wajar wayay Cheikh Issa borom du baan jenn jirajam dinay gali yow ay Sëriñ Bara jenn borom xembayar jirajam la de ka kamar aaju amaana saa جعت وجهي إليك اليوم لرحتك من Mani mboolem yi ilay jali al mam Cheikh Ibrahima Fall lambu ndamboy mam sey yaay taala moo du mbenn Fall jërëjëf ilay jali al Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Serigne Assane Fall Serigne Amdi Khadi Fall borom Daaru Bayra Jeng jërëjëf kaw na de ka kamar aaju xamal saara habli bi fadlika ya wahab ya maliki kaw ni ladayka kamar

nag su ma amee sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke juraaja sëriñ Baara Baye Cheikh mu day sa Mbàkke sëriñ Baara Baye sëriñ Xaadim Maama juraaja sëriñ Saliou borom daara ñaaro sëriñ Saliou borom janatul Mawa juraaja sëriñ Saliou Baye sëriñ Cheikh Mbàkke Saliou borom janatul juraaja sëriñ Saliou Mbàkke Baye Cheikh Moustapha Saliou janatul juraaja man Cerno borom daaru Cheikh Awa Balla Mbàkke Xadim Mbàkke jirajël sëriñ Basiru borom daaru mi nam sëriñ Muntaxa Mbàkke borom njaaram jirajël Cheikh Massamba Mbàkke sëriñ Mamadou Jobe borom Tuubaa Bela jirajël Cheikh Massamba Mbàkke Cheikh Abdou Baxa Mbàkke borom daaru Karim jirajël Xaadimu borom Tuubaa njaaram Mbàkke Ibrahim Ibrahim Ibrahim habibi fadlika ya wahabu ya maliki kawnirika kaman biru suwaru bijay man ay suma sadat qarabo samsu qaribo fi sawi aghmaru aw anno indo fi ma yara basarum baru awali ambar wa naru lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri lil badri nurun asimun israu bi lak insan lam yakun sanadu لقصبتون لدى أن لا نذهب في زاد يكون للبر بما أنت بمزرب ملك نوى من خليج البار أختار أتل ماء ولا أتل ماء ولا أتل ماء ولا أتل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار ندا بالماء أمتار سنجب مدينة سنجب مدينة سنجب مدينة دفلين مدينة محمد رسول الله سنجب مدينة سنجب tawakkal malaasu lali arjoo najaata fi mee duniyaa wa uxraa falayti aw la ujaaru wa najibu la si fi wasqi xalqati wa xulqi xiina tasjaa wastaar wa lam yaji min sawi iflaaxi wal bulaxaa bi saji wa siri bi maa semi zaaru xaadim rasul borom Tuubaa yaram bay ya xam lan Mbakke borom Tuubaa belal jërëjëf man yëkkit leen seen ñaari loxo ca kaw ñu màgg Sëriñ Tuubaa bu ko def yàlla nga fekk déwén jar na ko wala bi yaa si alaaji Fallu borom di nekk sam yabal bàyyi Cheikh Abdou Karim borom makaarim jërëjëf iflaaxi wal bulaxa sëñ Fallu Mbay alaaji Baara borom maaliye jërëjëf bi saj wasina sanasara alul waga titum bi sana madaho ala rakujil لديك كما من بلا إذا يا ملكي كن لديك ككمن ككمن بروا إسوارا بجاي من أيس ما سا تاتخار سمزلت خار ربوا ربوا بزار adaatu qaraba maam cerno borom daru xasantooma ridwa ridwa ridwai axma aw ano ino fi ma yara basar bar awa alayhi abar wa annar fan yu gudd taxaw ca kaw ñu màggal Serigne Touba bu déwénee yàlla nga delsi jug leen taxaw ca kaw ñu màggal Serigne Bamba ku ko def bu déwénee yàlla nga delsi ca barkeb Serigne na ko ah, lil badri nooru nasi tan yusu tadaaw bi lakin lisan lam yakun bil baari noor na nuurun leer la wani sa naaru bil bi lakin lisaana yakun yakun lisaana ku sopp sëñ Bamba loxo ca kaw lil xaar ni la da ay ni la ona saran lakin lisaana la olam tan buta si jaaran lil xaar عين عين لو نظرا لكن لكن أولى أولى أولى أولى كان تاسيا أحمد بمنا يا كل البرنا انتاب مسرب لكن من خليج البحر أغدار يا يكون للبر ما انتبى مسرب لكنه من خليج البار أختا مدو بمبنانا أعطى لما ولا كالوبل منسجما ولا تجار ندى بالماء أمتار أعطى لما ولا كالوبل منسجما sadima la tijaar na daabin ku sopp sëñ Bamba loxo ca kaw ataaluma un wala kal wabili mun sajiman wala tijaar na daabil maay am taaro Muhammad tabemga gachelna tawpu alme wala tajarina da dina da dina da Modu Bamba nena sa kalmala sulasi arjuna jatabi dunya wa ukhra walaiti awla ujara sa kalmala sulasi arjuna jatabi arjuna dunya wa ukhra walaiti Modu Bamba nee na waaw waaw la ne xaji me anu siyaarati laakin lisaani loo kal xalbu sawaaro ni sa loxo nu Ahmadu Bamba nee na law alay ali wa dala ilahi bayn sanan unu nazanil kullami ma yukhtaara i ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën jot mboolem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li xam ne mooy